filles bu Dakar gannaaw ba ci la delluwaate Tëngéej ngir defe fa quatrième ca lycée Maxtar Seck ci atum 1968 Juma Jeng Jaxate daal di am diplôme sténodactylo gannaaw ñetti ati formation ci noonu mu daal di tàmbalee liggéey ci ambassade bu République démocratique du Congo atum 1969 mu nekk hôtesse d'accueil ci Air Afrique atum 1970 mu nekk secrétaire ci direction bu ASECNA daal di fay nekk ba weeru janvier atum ci at mi ci la ubbee Salimar Couture fekk booba ñaari machine rek la yore waaye nag tey ji entreprise bi Juma Jeng Jaxate jëlee na ko ci ñaari machine daal di ko yóbbu ba ci investissement bu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukki million ci xaalisu CFA boole ci nag kilifa yu bëri yu nekk ci déndu Afrique ñawal na leen atelier de confection Salimar Couture am na sax ay njiitu réew yu nekk ci déndu Afrique ba ci seeni soxna yu ñuy solal atum 2008 chanteur congolais bii di Koffi Olomide fental na ko woy 2015 Fally Ipupa euh, daal di na koy woy ci wàllu politique élection présidentielle yu atum 2012 Juma Jeng Jaxate ci ak fàttali moo nekkoon surprise bi ndax nag dafa sampoon dëndam dëkk président Abdoulaye Wade ne nan ko jox réew mi ngir mu jiite ko boobaak léegi nag ci la soobu ci wàllu politique ndax ba fii président Macky Sall moom la tabb def ko ambassadeur itinérant lii tax ba colloque yu mag yu bëri yuy amee ci biti réew da koy teewee ci wàllu social Juma Jeng Jaxate yóbbu na lu ëpp ñaar fukki doomu aadama màkk tëngee ci gamu fekk baax tamit tabax na fa morgue te lay toppatoo boole ci def fa ab maternité boo xam ne képp kuy mucc ci boobu boobule gox fa ngay dem saa yoo ko soxla juma jëng jaxate ay jaar-jaarama tàmbale ci dara ba ni mu yegsee fii tax ba mu fesal ab livre duppee ko les secrets dinu réussite daal di ci xaatim fi mu jaar ba ni mu yegsee fii juma jëng jaxate nekk kon ba fii ku jàpp ci ni réew mi di doxe waayeet koo xam ne ay mbokkam gërëm nañu ko jërëjëf Serigne Saliou sekk ci portrait boobu la nga xamee ni moom nga jagleel ki ñuy waxtaane tey di ko rendre hommage en direct ci télévision Futur Média Ajaratu Juma Jeng Jaxate dégg na ba dégg excellence ci jigéen Baye Cheikh ñu ngi jëm ci ku mag tey mm-hmm. fii nu nu yoon ni sawar ci de te yoon